bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na ñi ngi nuyu Serigne Modou Rokhaya ànd ak sëñ Cheikh Diop ak El Hadj Youssou Yadd mi bàyyi ko ci sëriñ bi nee na mu yónni woon euh, Soxna Bali comme ni mu ko baaxoo defee at mu jot euh, naka jekk. ngir lii nga xam ni da koy dugal ci bisam bi ndax nee na bis bi sëñ bee ko moom moo ko moom ci fànn yëpp te nee na dara waru ko ci it lu dul ñaan nga mu def ndax nee na lépp lu jag ci barkem rek la jagee kon ñu ngi koy sant bu baax a baax nee na moo du yow ak sëñ Cheikh nee na ñu ngi leen di yóbbante waat di yeesalaat taalibe gi rek akuk laxasaay nee nga xam ne lii moom dañ koy jàppee loo xam ni nee na ak soññe rek la ndax nee na sëñ Muntaxa yéeneem ci man mënoo xam fu muy tàmbalee bay xam ni fu muy yam nee waxtu wu nekk dëgëral ko lu dëgëral sa taxawaay rek mooy li jiitu ci sama yitte. te nee na loola da koy doxe di ko jëfee. sëñ bi ne li ma ci mën a leeral sama digg moom. yàlla rek lañ koy bàyyee. ak jëmmi sëñ Touba ndax moom yàlla dafa def lépp lu muy def rek. dafa àgg ci sunu borom ba. dafa nekk ci àdduna te nekkul ci àddina. damay wax ni fépp fu ma toogee moom. damay fàttaliku jëmmi ku baax ki ndax nee na xam fu mu tollu ak xam xaal bi mu tollu ak lim yéene nit ñi. ak fi mu bëgg nit ñi nekk fa. ak ni mu ko yéenee ñépp moo tax nee na sunu borom fay ko ko ci xol yi. nee na ndax Cheikh Mountakha àdduna sépp ko bëgg sëñ Mountakha ñëpp ko nangul sëñ Mountakha ñëpp ko yéene kon sëñ bi nee ñi ngi sant bu baax dila la yóbbanteeg cant yit ci soxna Bali ci ay taxawaayam nee na teel la jiitu mooy taxawaayam ci sëriñ bi ci pastéefam ak ci yitteem akuk laxasaayam ba sëriñ bi gërëm ko lool. nee na te loola seereel na ko ñëpp. nee na ndax sëñ bi nee na soxna si day sacrifier jëmmam ngir moom. nee te loolu man Cheikh Mouhamed Bachir mii nee man mii koy dundak ak moom xam naa ko. nee na te bu yàgg yàgg tam. li wax booba Cheikh Sidi Mokhtar ngi fi. amaat na fi ñeenti at di wala juróom. sëriñ bi mas nay waxtaan ak man ne ci biir. ba àgg ci mbiram. la ma ca mën a leeral daal. la ma ca mën a leeral daal. mu ma ni sa ànd bi ak moom. nee na da sant ni sëñ Touba. nee na ndax xam na ni ak ñaanam gu nangule ci sëñ Touba. nee na ci digganteem ak euh, soxna Bali. nee na loolu mooy lim ci mën a wax ci rajo yi. waaye ñu koy sant bu baax. nee na ndax fi mu ñu féete. nee te la jiitu mooy cofeel gi. ak taxawaayam. sama jëmm gënal ko jëmmam. sama ndam gënal ko ndamam. ci mboolee mu fànn yépp lu agsi mu fàtte ci boppam. xool sama jëmm nee na kon nag dama koy bàyyeeg di sëñ Touba rek moom mi nga xam ni moom mi nga xam ni moo waral ànd bi yàlla sàmmal ñu ko ba ci kanamu sëñ Touba nee ñu ngi leen di sant bu baax nee na ni sëñ Modou Rokhaya mi itam ni muy doxee moom nee na rek laa koy mujjee wax ak nit. koo xam ne mbokkam bu ma ko tuddee dana ko xam nee na ay tax taxawaay nee na sëñ Modou Rokhaya mii Rokhaya ci man ni bu yàgg ak El Hadj Cheikh Diop mii nee na di jub di ko dëggu nee na ak ñun ñëpp tam nee na suñuy taxawaay rafet na lool jërë ngeen jëf.